takk gi laay bañ ma nga fàtte ko rek yaay premier njëkkali. ma siwle ko fii yëpp Adamo man la may premier njëkk di ma yow. deuxième deuxième njëkk kii la Ndak Gueye. kuy Ndak Gueye. sama benn xarit la bu yàgg bu dëkk Piacenza saa Italie. amiin ñu jabar. waaw ju baax. yaa na loolu yoolal xew bi daal incha allah rabi dañuy def lu simple na dimanche gars yi di paay dañuy dem ñaan affaire yooyu. léegi après bu ñaanee ba pare ma jël benn villa mooy appartement yu ngand yi am piscine. léegi boy yi fa la ñuy nekk ñu fo après kii ñëw ñu tëj tànn beer yi ñëw bongomaan yi xam nga photographe bi day teel a ñëw 18h lay ñëw ba kii. après léegi di defkat ñëw nag xam nga animé xew bi bongomaan yi toj mais daal incha allah bi moom dina yëngu. man de ci waaw def sama peñé def sama lima wara, def yépp ci ndaxte nit fi Sénégal ñun suñu suñu suñu culture bu la mayé premier ñëkke da nga cay def la la war barké sayidina Seydina ya ko mom dé waxna ko sama yaay bari waxna ko ñëpp ne ko mam jaay premier njëkkali kenn du ko wax jog yow direct barké Serigne fallu mbacké may nga ma premier ñëkke waaye do to ko defati mam jaay koku maa la ko maa ko waxoon ba may nekk xale laay dëggal lii yaa dafa ah, dama ko wara sammu